yàlla nañu yàlla may ñu def ko ay ati ati at kenn bañ a manqué yàlla saafara jàngoro yëpp yàlla yokk réew mi dal yokk fi jàmm yokk fi xéewal yokk fi sutura barkeel ku nekk la muy liggéey puisque xutba imam bi yëpp ci loolu la aju tey mooy defaraat jikko yi li nga xam ne lii moo ñuy tàggaleeg jàmm ñu moytu ko li nga xam ni mooy indi lor di lor sa bopp di lor ñeneen ñu moytu ko mhm. li nga xam ni mooy indi xéewal te mooy liggéey comme ni ñu ko yàlla sante ku ci nekk góor góorgóorlu ca lala yàlla jagleel ci xareñ te ñëpp nangul la ko journaliste bi professionnel ñu nangul ko xareñam mhm. bàyyi koog métier am bi ñu nangul ko xareñam bàyyi koog métier am mhm. docteur faj ñu nangul ko xarañam bàyyi ko métier donc ku ci nekk rek li la yàlla jagleel ci xareñ nga koy indil société bi yàlla barkeel loolu ba nga xam ni ñëpp dinañu ci jariñu loolu daal mooy euh, kàddu yi jërë ngeen xanaa euh, nuyu imam gërëm ko ginnaaw ba ma nuyoo umma bi yëpp euh, ñaanal umma bi yëpp ñaanal réew mi ñaanal sama dëkk Thiès donc imam c'est un intellectuel jamono bu nekk daf lay surprendre ci profondeur ay xalaatam informé wu informé ak xam bu mu xam dëkk bi e, moo tax jamono bu ne rek dañ koy bàyyi xalaat tey jii rawatina tey ji aussi def na e, discours xutba bu mémorable je le pense bien e, boo xam ne liñ ci mën a jàng bëri na et ñun en tant que politique aussi liñ ci war a mën a jàng bëri na ñun aussi en tant que maire li mu wax ci dëkk bi jafe-jafe dëkk bi liñ ci mën a jàng bëri na xanaa gërëm ko ñaanal ko bu baax a baax a baax. mobilité bi mu tudd si biir ville Thiès yow nan la lay def xam na ne cadre de vie soxal na la trop waaye Thiès moom li mu imaam wax kenn mënut peut-être bouger. Babacar semaine dernière euh, dama def euh, benn visite. ci école polytechnique ak toute mon administration ak le bureau municipal dama seeti le directeur euh, de l'école polytechnique bu Thiès ni ko feu tricolore dañ ko bëgg indiwaat à Thiès mais au lieu may dem jël xaalis bu bëree bëri ko commandé à l'étranger école polytechnique bu Thiès am nañu xereñ tempo jàppale ñu ñu indiwaat ay feu tricolore feu adapté ils ont donc déjà réalisé démb la ñu waroon a ñëw présenter ñu le feu bi nga xamante ni concevoir nañ ko jàpp nañ ni mën na adapté wu au niveau de Thiès donc pour vous dire que loolu imam euh, daf ñu ci fekk fekk nañ ci ñu liggéey sur un projet dans des délais pour que Thiès ñu réorganisé waat ko avec des feux tricolores ak benn brigade de cinquante volontaires yoo xam dans un premier temps bëgg naa ko recruter yoo xamante ne organiser organiser yoon wi barki démb dama toog bu guddi ma génn sama oto donc ma ñëw ba ci El Hadj Omar bi fekk fi benn accident j'étais obligé ma garer ci guddi gi te woo sapeur tax mais y personne du policier du mairie c'est c'est cette situation li kala fekk dangay dem dans ci biir Thiès benn problème am fa mais dara luy mandarga lu mën a jàppale askan du fa du du fa du fa mën a ne du un agent de la mairie du police du gendarmerie du dara da population yi ñooy organiser wu ñoom ñooy mujj sax di gérer circulation bi je dis que benn amuñu ay moyens mais suñu amoon cette brigade volontaire cinquante ak les feux je pense que ñu mobile euh, jënd ay oto jox leen ay surtout ay ay deux cent ñu am mobilité boobu je pense que bu trafic bi méttee ci benn côté ñoom dinañu mën a ñëw ñu jàppale population yi à huit heures xale yi war a jàngale ay buntu lycée Malick Sy dinañu ñëw ñu taxaw ñu jàppale loolu c'est des choses yoo xamante ni ci ay délais yu raisonnable bëgg nañ ko réaliser incha allah woote jàmm bi toujours euh, lan moo ci seen waaw jàmm loolu waaye mënti wax développement ci jàmm lañ koy tabax waaw développement ci jàmm lañ koy tabax donc suñu réew yi suñ ko tojee eh, soo demee dëkk yu mel ni Côte d'Ivoire ba ma ne ay dëkk yu mel ni ay Sierra woon dëkk yi nga xam ne yëpp xam nañu instabilité ñooñu ñoo la mën a wax lan mooy jàmm mook santé ñooyam boo wéeree di dox say soxla da ngay yaakaar ni ñëpp ñu ngi ci jàmm boo feebara boo fanaanoo bëñ bi metti boo xëyee Euh, dinga xam lan mooy jàmm ci yaram donc waaye lenn rek moo koy fàttali aussi jàmm moom li koy suuxat di ko dimbali mooy ak maandute mooy ak njub waaw xanaa bi ñu sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi e, sant borom bi nga xamante ni tey moo ñu may ñu ñëw teew fi si mosquée mu sant bi nga xamante ni fii faral di ñëw di fi passé tabaski bi mais également di balu ak waa Sénégal yëpp mais particulièrement nag waa Thiès nga xamante ni mooy suñu dëkk xam dañ ko bëgg suñu xol donc di balu ak waa Thiès waaye di leen baal di sàkk si ñoom ñaan ñu ñaanal ñu ndax mission yi nga xamante ni moom lañu ñu dénk nekk ay mission yu diis ñu mën ko réussir mais également ñaanal Thiès waa yëpp eh, ñu passé tabaski si jàmm feet boo xamante ni dina nekk xéewal sutura tey nag comme ni nga ko waxee eh, imam moom ñëpp xam nañ son franc parler chaque fois dañuy jàng xutbaam euh, li nga xamante ni mooy les faits de société te tey bi mu gën a wax mooy yar ak teggin bi nga xamante ni parents yi war nañ ko jox seen doom yi parce que ñun ñëpp si kër lañu jóge suñuy wéjur ñoo am lu def si ñun ba tey ñu mën a taxaw ni am lu ñu am donc je pense que ni tey ñu ngi woowaat ndaw ñi Euh, ñu mën a am yar teggin donc éducation dafa baax ci réew te it su waxee parent yi wax na enseignants yi wax politiciens yi wax na ñëpp donc daal je pense que li ñu war a inculquer suñu doom yi war ko inculquer suñu bopp mooy jàmm salaam xam ni dëkk bu ñu bëggee mu defaru kenn waru ko yàq parce que ñëpp xam na ni le Sénégal mu ngi si yoonu développé wu mu ngi si yoonu émergence loolu su amee dañ ciy sant son excellence le président Macky Sall bi nga xamante ni moo fi teg son plan Sénégal émergent boobu ba léegi mu koy doxal di ko dawal di wax ni rek ndaw ñi maa ngi leen di woowaat ni bu leen kenn di jaxase seen xel parce que tey li xew dafa ñaaw parce que bu ñu demee bay taal ay université taal ay bibliothèque yi nga xamante ni ñun ñëpp tey yow mi mi jàkkaarloog man ar man mi tey moo tax ñu mën a am xarañ ba taxaw di wax donc je pense que ni tey ñu ngi lancé waat un appel à la jeunesse ñu am dal am retenue nit ki li ngay xeex mën nga koo xeex ci wax mun mu mais doo ko xeex ci taal doo ko xeex ci yàq te li gën a am nag solo li Imane wax mooy liggéey dëkk kenn mënu ko defar ci ay wax nañu dem liggéey gëm ni état nag mënul jox ñëpp liggéey ndaw ñi sénégalais am sa culte de travail parce que liggéey mooy tax réew dox le président Macky Sall c'est un président qui travaille ñëpp gis nañ bi fi toogee ba léegi réalisation yi nga xamante ni moom moom la fi def je pense que ni loolu mooy tax tey ñu mën a yegg fi nga xamante ni moom la ñu bëgg a yegg ëllëg. yow jege nga ko lan ngay xaar ci discours am bi mu jox dig daje après tabaski yu bare yow gëm nga dafa war a eggale yoon may na ko am na ñeneen ñu ne dafa war a tëgal proposer Abdoulaye Diaye peut-être candidat wala Ahmed Mbaye wala un autre. waaw man daal li ma euh, gis mooy hmm. mooy li nga xamante ni depuis près de euh, trois mois maa ngi koy wax mooy dama lancé woon benn mbir de initiative di appeler à la candidature du président Macky Sall pour deux vingt quatre te loolu askan wi lañ dem seeti leen am lu si toll ni million te sénégalais ñu ñoom d' accord nañ pour que le président Macky Sall nekk candidat quel que soit nag moom li nga xamante ni moom lay wax moom aussi war na jël loolu comme moom matuwaay parce que le peuple est souverain askan bi tey bu ñu demee si ñoom ñu wax ak ñoom ñu signé pétition te ñoom président Macky Sall li ñu bëgg mu nekk seen seen seen candidat c'est parce que am na ay raison euh, raison yi nag su ma ko lim jeex parce que président Macky Sall wan na Sénégal yoon yoonu développement yoonu émergent yoonu jàmm mais également yoonu stabilité parce que ñi nekk autour de de de Sénégal yëpp ñu ngi xaar Sénégal tàkk te nag tey Sénégal ñoo ko moom waruñu koo taal moo tax tey ñu ngi xaar le président Macky Sall nee na bu tabaskee ba pare dina wax ñun nag li ñuy xaar mooy li ko yoon may parce que constitution bi moo ko may pour mu mën a présenté waat 2024 te loolu ñun les un million de sénégalais ñoo ko approuvé bëgg mu continuer ñi ko xam-xam na pré woon dans le privé ba ñëw xam ne yëpp ko bokk depuis quelque temps da da nga pour politiser am na sax ñu wax ne li dal poste bu ñu moytu voilà dina dal AIBD loolu ndax ay attaque politique la la waaw moo xam nga ñun moom ku ñu xam-xam ñu si dal xam ñu si yar xam ñu si teggin loolu mënul ñàkk ci seen politique boo nekkee Eh, fenn di def ay preuve di def ay résultats dina am ñoo xamante ne ni peut-être eh, am na ñoom beneen gis-gis buy bi ñu gisee mais li ma mën a wax mooy mooy loolu dama jàpp ni eh, du événement mais li gën a am solo rek mooy mission bi ñu dénk ñu ngi koy doxal comme ni nga xamante ni moom la waree parce que ku xam Ablaye Dièye xam ko ni avant muy nekk directeur général AIBD nekk na PDG d'une société boo xam ne dama ko jël si zéro ma yóbbu ko euh, au plus haut niveau et je pense que ñun esprit de management boobu la ñuy continuer di ko doxal moo tax tey ku ku am jàngat ku ku mën a xool si sa akulaay taala war nga xam ne aéroport Blaise Diagne moo ngi si si yoonu liggéey merci